dafa ci di wax shurutul kamaali mu jàll kon ci mutatahiran tey aji laab maanaam sopp nañ ki nga xam ne mooy nodd mu amee laab gi nga xam ne moo war ci moom bu dee laabug xabas amee na ko bu dee xadas amee na ko xam ne boo sobi nekkul ci moom te bu ko jàpp waree def na ko bu ko sangu farata waree itam def na ko bu ko tiim waree itam def na ko waaye nodd te amut ak laab sib nañ ko xaa imun tey aji taxaw maanaam mu taxaw nodd loolu lañ taamu waaye sib nañ mu toog nodd te amul ngànt su fekkee daa amee ngànt mënta taxaw nag loola kon togg du wàññi dara mustaqbilal xiblati te aji jublu xibla maanaam sopp nañ bu dee nodd mu jublu xibla fi nga xam ne buñ dee julli foofu la ñuy jëm mu jublu foofu bu dee nodd illaa li ismaahin dara ngir bëgg a ñépp ñëpp bu bëggee gox yëpp dégg ko nag kon mën na gox bu ne bu jublu fa wax waaw da koy tàmbalee ci xibla kon waaye kon mën nay wërilu nag di wër xibla yi fu ne mu jàkkaarloo foofu wax ndax ñooñu dégg ko suba boobaa moom kon wan gan gannaaw xibla du wàññi dara léegi ni yàlla def na ci xéewal bi nga xamee ne ñu bari am nañ haut-parleur yi maanaam rajo yi jot li kàddu yi ci kaw nga xam ne kon moom mën naa jublu xibla rek ndax ci coobare yàlla kàddu bi dana dem fu sore sore wa an laa yakkoona ak mu nekkoon xadd di julli tilka salaata googa lay nga xam ne addana nodd na na ci dañu sopp ci moom mi nodd julli gi xam ne moom lay noddal mu fekk julleegu ko woon waaw waaye sib nañu moom ba noppi di ko noddal faslun la aw kaddu sos moo gën a feddali ko na adaani ci nodd littisaaliha ngir jokkoom nga bi salaati ci julli ga nee na liqaam sunna la soo xam ne moo gën a far sax sunnas noddu ndax moo gën a sës ci julli gi wa in taraaxaa ndeem yeex na maa la nga xam ne bay na xumaa nekk na seen diggante batalat kon yàqu al iqaamatu liqaam nga wastu uni fatte sosaateef ko waaw nee na bu fekkee ba nga liqaamee ak ba nga ne allahu akbar tàmbali dañoo soree kon xamal ne liqaam ba baaxut ci digganteem ak kabar bi ñu sore rek da ngay bàyyi booba liqaam te defaat beneen waqaala wax na ibnu kinaana te ibnu kinaana ne man tarakaha ku ko bàyyi am dan ci ab tey batarat kon yàqu salaatu foo juleem fal ihtiyaatu kon léemtu ga maanaam la gën a wér al yuhtarasa mooy bu dee fi sàmm xalal ittiyaani ci dikkee bi xaa ci moom wala yutta saa xala te deeful sabantal fii daalika ci loolee te ndagal ibnu kinaana nee na ku ko bàyyi moom te tey ko ak julleem yàqu loolu sax xaw naa lënt ndax ndegam sunna la ko mel na ne daaw tax jullee yàqu waaye nag xanaa kon ñu ne kon sabantal ga wax kon xëy na kooku da ko bàyyi ci sabantal mun waaye daal li gën a mooy nga góorgóorlu bay def liqaam bi ndax ndegam kee àgg na ci ne boo ko defee julli gi yàqu nga farlu rek kon yow góor gi ba def ko moo tax mu ne wa haza lii fi xaqi rajuli nekk na ci àqi góor maanaam boo dee góor la ñuy wax ni liqaam mënta ñàkk ci yow wa amal mar'atu daal jigéen fal iqaamatu liqaam fi xaqiha ci àqam mustahabatu lu ñu sopp la sirran ci yàllu wa in lam tuqim dem liqaamati fala isma di bàkkaar alayha di ko ca war jigéen moom dañoo sopp mu liqaam ba noppi te wax ko ci suuf dañ ko yëkk dañ ko yëkkati waaye bu ko deful tam moom dara du ca nekk wala duha baatu liqaam nag mooy allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha allahu ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله liqaam moom ngay maas baat la war a maas ba mu des fa sa baat daanoo fa sa baat daanoo moom say ba def ko maas ak néeg ndax arab yi duñ taxawee ci baat ci maas nga fa dëkk bu fekkee dugub dugub néeg comme néeg la ñuy taxawee ci ab baat li ma wax tam xat xaamat salaatu ñaari yoon du ci ab takk maanaam bu dee fiq maali moom li gën a wóor benn la ñu wax xat xaamati salaatu kenn ko wax yaar yoon wamaa li nga xam ne zakarnaahu tudd nañu ko min ifraadil iqaamati ci wéetal liqaam maa xadat takbiran dara kàbbar ba fa innahu naka moom musannan lu ñu ñaareel la woo moom almashhur mooy la ñu siiwee fa in shafa ndem tollanti na xayrat lu ñu kàbbar ba laa tujj si woo kon du ko doy al li nga wax léegi ci doy xam baat bu ne nga wax ko benn yoon ba mu des baatu allahu akbar neen loolu kat mooy yoon wa bu fekkee am na ci ko wax ñaari yoon ku bokkut ak allahu akbar kon liqaam bi du doy kon liqaam bi du baax wala yatakallamu du wax fil iqaamati ci liqaam ba wala yaruddu te du delloo ala man ci ka nga xam ne yusallimu dana nuyu alayhi ci moom nee na boo xasee bay liqaam bul wax lu bokkul ci baat liqaam nga bu la kenn nuyoo bul ko fay wal musalli aji julli ja mu xayyarun ko ñu tànn loola bay na añ yàqooma ci diggante mu jóg li salaati jëm ci julli ga xaalal iqaamati ci waxtu liqaam wa aw ba'daha wala ci gannaawam yow nag nee na bu fekkee ne liqaam moom dangaa bëgg a bokk ci julli ga rek bu la neexee kii liqaam bu tàmbalee jóg rek ah bu tàmbalee liqaam rek nga daal tàmbalee jóg yow itam nga jóg fa saasa daal dangaa bëgg a wax daal ne yow ndegam liqaam moom dangaa bëgg a bokk ci julli gi rek man nga suñ tàmbali li xaam nga daal di jóg bu neexee bàyyi ba ci biir li xaam bi a jóg bu la neexee bàyyi bi daal nga door a jóg faslun charaitu salaati sarti julli arbaxatun yent la taxaaratul xabasi laa bu xabas xani saw bi walis malaan ma wal badani ak yaram wa wal makaani ak béréb ba ibtidaan ci tàmbali wa dawaaman ak ci sax waaye nee na sart julli yent la bi ci njëkk mooy nga bañ julliwaale sobe ci say yére mbaa soo yaram mbaa béréb ba nga taxaw di julli te sobe si nga war a fexe ba mën caa am ca ba ngay tàmbalee julli ba ba ngay noppi su fekkoon da ngay tàmbali amoo sobe waaye da nga am dem ba ci biir sobe su tooy taq la te mën a moom julli googu baax faaw de aajowoo nga taqoog laab gi ba ñu ànd ak sobe ba kër ngay noppi. wa tahaaratum xadas ak laabug xadas ibtidaan ci tàmbali wa dawaaman ak ci ak sax laabug xadas ba tey nee na mënu cee ñàkk maanaam da ngay laab ak laab boo la waree maanaam da ngay sangu farata ndegam moo la war mbaam njàpp ndegam moo la war fekk yooyu tam la itam nga amee tiim loolu mooy laabu xadas loolu tam na nga koo amee da nga ko war a amee ci ba ngay tàmbali ba ngay noppi boo jàppoon ba àggal ba tàmbali julli dem ba ci biir donte ci taay la njàpp moomu tojit bu baax faaw da ngay jàppiwaat di ko julliwaat waaye nag mm, bul fàtte ne laabu xabas gi mu njëkk tudd moom ci biir ngir mi ci fiqu maali dañ cee am ak wuute am ñu ko boole ci sart yi tax julli gi wér am ñoo xam ne boolewuñ ko ci julli gi wala déet wax ji gën wóor nag te ñu bari ànd ca mooy su fekkee ne sobe si fàtte woo ko te mën ngaa tàggoog moom kon tàggoog moom ab sart lay doon ci wéru julli gi xam ne boo julliwaalee sobe si yooyu jamono faaw rek nga mu julli ga am na ñu wax ni moom sunna rek la nga xam ne soo ko tayoon julliwaale sobe si itam daañu la digal sax nga waat ko faw waaye teewul julli ko njëkk moom baax na am na wuute foofu waaye nag jàppale wax ci gën a wóor rek mooy su fekkee ni daal fàttewoo soobee si te mën ngaa tàggoog moom kon ab sart la nga tàggoog moom bala ngaa julli bu ko defee nag laabu xadas nag xadas moom mooy loo xam ne nii jëmmi sobe nekkul ci yow waaye nag te na laa mën a julli mbaa lu mel ne julli mel ne xam nga dem ci wanaw ba noppi fa ko sobe raxas na ko xam ne jëmmi sobe nekkatul ci moom yooyu jamono xam nga ne du tax mu mën a julli mbaa laalub kaamil mbaa wër kaaba mbaa dara ci xam ne day day aajowoo la koy taxam laabu xadas nag mooy bu ko jàpp waree mu daal di jàpp bu ko tiim waree itam mu daal di tiim ba ci cangaayul farata itam ci laabu xadas lay doon ndax xam nga bu fekkoon ne dafa amee janaaba ci misaal sobe taq ko mu dem nag léegi raxas sobe sa ba mu set xam ne moom léegi jëmmi sobe nekkatul ci moom kon xawas moom dañ na ci moom waaye léegi amagul xadas mooy léegi faw nag mu def ca ngaayul farat li nga xam ne moo ko war door a amee laabug xadas mhm. ba tey nag saa yoo xam ne rek moom tiim mooy farataam su ko defee rek daal nay am laabug xadas la bon ci tiim daal mooy def ko ci sa tey bakkan rek Ah, def ko ci bëgg lu la neex rek min kulli salaatin ci gépp julli daati rukkoo hin guddi borom rukkoo wa sujjóot ak sujjóot wa xëyriha ak lu moom nee na yaari laab yi moom moo xam julli nga ngay julli dafa am rukkoo ak sujjóot ni ki julli juróom mbaa amul rukkoo amul sujjóot ni ki julleeg néew ñoo ci yemoo lu tee sart yooyu mënu cee ñàkk wasatul xawra ak suusa xawra bi kas yi fi ci aji tal bi mu sàll la satin ci lu ñu tomb ñetti tomb ay li ci namm xolli wa aji tal waaw ah, na booy julli sàng sa awra daañu wax lan mooy awra te sànge ko yére bu tal maanaam bu dee loo xam ne ku ne jàkk daal di séen awra ja muy feeñ kooku moom du doy day aajoo faaw mu nekk loo xam ne dana sàng awra bu wér loolu bokk nañ sart julli su ko defee nag kon wa awratul rajuli awray góor min surratihi mi ngi tàmbalee ci jumbo xam ilaa rukbatihi ba ci bati woomam nee na góor awraam mi ngi tàmbalee jumbo xam ba ci bati woom loolu bu ko sàngee rek awraam sàngu na bu dee julli bu sàngee loolu rek baax na waxawratul marati awray jigéen nag alxurrati ca di gor bi ajnabiyin bu àndeekub jaamur bu góor wala muy julli itam benn la jamihu badaniha mooy mboolem yaramam wa illal wajha ndaray xarkanam ba wal kaffay ni yaari teen nga yaam yenn jigéen bu dee gor dañ koy teqaleeg bu dee jaam ana bu dee jébéer bu dee jébéer moom moo góor ñooyam li awra tàmbalee jumbax ba ci bëti woom waaye nag bu fekkee ne jigéen ji gor la te muy julli wala mu nekk ak jaamur bu góor kon dafa war a sàmm yaramam yépp ba mu des kanam gi teng yi mhm. su ko defee itam yow mi góor gi nee nañ sañ ngaa xool ci jaamur bu jigéen boobu kanamu ay tengam bu fekkee ragaloo ca fitna jubluwoo ca bànneex ca xool ga itam ba taalif téere yi booba mbirum gor ak mbirum jaam dafa amoon léegi nag moom góor rekk moo am fii ci réew mi sax ñañ fi daan tuddi ay jaam la ci ëpp du woon jaam dëgg-dëgg ci lislaam ay góor lañu woon doole rek moo leen not ba defal leen ay jaam xam ne kon atte yi ñu wax du tax ñu teqale ci góor ak jaam ci googu wàll wastiqbaalu xiblat ak jublu xibla illaa fil qitaal dara ci xeex xaalatal iltihaami ci waxtu tampaloo xare nee na jublu xibla bokk na ci sarti julli ndegam mën nga ko te jekk ko maanaam ne bu fekkee ne léegi dañuy xeex te amul amuñ jotut mën a xaaj mbooloo mi julli julli gi wax ci salaatul xaw fi kon waxtu julli jotee noo mën a jullee rek jullee ko boo jubloo xibla baax na boo jublul xibla baax na mën ngay julli xeex mën ngay julli dox mën ngay julli daw yëpp rek dara nekk ci ne ko risaala waxe woon wa fi naafila ci ak ci naafila fi safari ci tukki almubihi bay aji daganal lil xasri ñel wàññi li raaki bi ñel aji war daaba nee na bu fekkee da ngay tukki tukki boo xam ne mën na dox wàññi 72 kilomètres daanañ ko wax am ñuy wax 83 wala 85 kilomètres ci wute yu am rek kon bu dee naafila fa daaba ji jublu rek mën nga faa jublu du aajoo ngay wàcc jublu la waaye na ñoom dañ daan sart nam doonoon ci cosaan de ku war daa ba lañ wax waaye bu fekkee day ku war oto wala avion bu dee ñoom boolewuñ ko ci woon borom saraa yi am nañu ci boole saxaar ay yoon saxaar gi aw ci suuf man naa tam yenn boroom xam-xam yi nga xam ne xëy na léegi danañ di gëstu ci jamono ji ni mu demee ndax danañ ci boole mel ni oto avion yooyu loolu daal waaye saxaar daal moom am na saraa yu ko ci boole. nañ ko xamoon cosaan ci lañu koy bàyyi kenn du ko jéem a soppi nee nañu ku julli ilaa ilaa xayril xiblati jëm ci dul xibla naas yeen mbir mi aji fàtte falam yaalam te yëgut xataa faraxa ba mu noppi min salaati yi ci julleem nga ahaada kon mbaamu abadan faw waaye nag wa jaa a dikk na fii ko ci loolee xilaafun aw maanaam kooku dañ koy xaajale ñaari xaaj ki nga xam ne moom daa seetoon ba xam ne xibla fii la bu dee julli fii la war a julli jëm ba mu demee bay julli nag mu fàtte ko julli jëm feneen kon kooku moom dafa fàtte wet ga waroon a jëm kooku wax ci gën a wóor moom mooy julli googu baax na dañuy sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa waaye julli googu baax na mu des nag ki nga xam ne fàttewul ne sax xibla moom fii la waaye daa fàtte woon ne jublu xibla kat ab sart la ci julli gi da xëy na su fekkoon du woon li fàtte woon ne jublu xibla ab sart la ci julli gi kon moom dana ko jublu waaye nag daa fàtte woon ne jublu xibla ab sart la ci julli gi ba xëy na fullaalul jublu xibla ba jublu wu ca nag hmm, kooku wax ji gën a wóor moom mooy julli ga du baax dañu wax ne wax ji gën a wóor mooy julleem googu moom du baax faaw da koy baamuwaat faaw faaw faaw du ci baamu ci waxtu dong waaw lu ñu wax nag mooy àtteb koo xam ne dafa julli ba sëlmal door a fàttaliku ne jubluwutoon xibla mu des nag bu fekkee dafa nekk ci biir julli gi ba noppi nag daal di yëg ne kat moom jubluwut xibla kon kooku bu fekkee ne gumba la dañ koy may rek moom mu daal di jublu fa xibla ga féete nañ ko nañ ko wëlbati rek ba mu jublu xibla mu daal di jàll ci jullee ndax ndegam du gis moom dañ koy jéggal loola ba bu fekkee njàccaar la njàccaar mooy du ba mën naa gis waaye lam mooy moom bariwut tuuti rek la mooy ba kooku day wëlbatiku ndànk rek jubluwaat xibla mu daal di baax mu des nag moom moom nga xam ne njàccaar la bu fekkee lam mooy xibla dafa bari te yëg ko ci biir julli gi waaw kooku moom day dagg rek tàmbaliwaat wakazaliki ni inkaana dem nekkoon na jaahilan di aji réere xibla ga aw xaamit wala muy aji tay ko waaw loolu mu wax ne ba tey bu fekkee ne moom daa umpale woon xibla gi mbaa mu tey ko ba noppi léegi moom bañ caa jublu kooku moom mën naa leer jërul andi fi woote mbaa dara ki nga xam ne moom dafa umpale fan la xibla jëm dañ ko waxan danga koy laaj koo xam ne xam na ko mbaa nga seet jàkka joo xam ne wóor ni ne jublu na xibla nga jëm fa mu jëm ba jàkk ji jëm waaw bu fekkee amu ca benn tegtal bu mën a tegtaloo ci xibla nag kon wet gu ko neexee rek julli jëm mu daal di baax su ma nee seet wet yëpp wet gu ne mu julli jëm fa ki julli jëm fee julli jëm fee julli jëm fee muy yenti julli xibla gu ne mu julli jëm fa tey loolu ci waxi ñenn ñu baax na waaye moom daal say mu seet wet gu ko neex rek mu julli mu daal di baax mu des nag ki nga xam ne moom moo ko tey xam ni fii la xibla jëm ba noppi mu julli jëm feneen kooku xam nga day fo rek kooku julli moom du baax nga xam nga fo lay def faslu li ab dog la faraidu salaati faratay julli arbaxata xashara fukk laa ñeent faratay fukk laak ñeent te nga meneen fukk ak juróom daañu wax bi ci dolli ko mu fukk ak juróom al bu njëkk ba takbiratul ihram mooy kabaru armal li kulli musallim ñeel jëpp aju julli waaw nee na allahu akbar bi ngay tàmbalee julli gi moom farata ci képp kuy julli wala duha baatam nag mooy allahu akbar min xëyri i ci lu dul baaba man nga ne dul bijji baaba maanaam nga ne allahu akbar te bañ a wax akbar dañu bañ nga bijji baa bi léegi lañ koy defee wala yu ji si du doy xëyruha lu dul baat boobu inkaana ndem nekk na yu sinu di rafetal maanaam di mën rek al arabiyata wax yunu arab nee na allahu akbar fekkee mën nga ko wax noonu ci arab kon moom rek nga wax mu door a baax leneen loo waxoon du baax boo ne woon allahu azam ñu bokk maanaa wala nga ne akbarullahu akbaru ji jiitu allahu door a ñëw sax du baax amma man daal ka nga xam ne laa yu sinuha du rafetal langu arab faqila waxee faqila waxees na ne yadxul day tàbbi ci julli ga bi niyati ànd ak yéene doonal xajamiyati ci lu dul làkk wa mu làkk ci lu dul làkk wa muy làkk waxee la waxees na ne yadduxul day dugg ci julli ga bu mu xotti ci ànd ak aw làkkam maanaam bu fekkee mën laa wax allahu akbar ci arab waaye mën ngaa wax la mu tollool ci salaam ñu bopp niki bu dee wolof wala muy séréer mbaa leneen daal mu wax ne kon day jékki-jékki yéene te bañ a wax dara du wax dara lu nuru allahu akbar mooy du ko jéem a weccee ci aw làngam da koy wax ci lam da koy wax ci làmmiñam rek te seet na mu ko loolu la muy tekki ci aw làmmiñam mu waxe ko noonu athaniyatu ñaareel bi an niyatu mooy yéene bi an yaqsida ci mu jublu bi xal bi ci xolam ak du xoola tàbbi fi salaati ci julli ga almuayyanati ga di buñ ràññeel wa yekkoon dana nekk xasduhoo jubloom nga muqaarinan di aj lëkkaloog li lafzi takbiir ñeel baatu kabar ba nee na ñaareelu farata yi ci julli mooy yéene yéene mooy nga dogu ci julli julli sàngam mooy yéene ji faaw dee ràññi ko te it yéene gi day lëkkaloo wax gi allahu akbar su ko jiitoo lu yàgg waa wala mu mujj ko wala mu ko lu yàgg rek daal di yàqoo kon man nga mën nga boo waxee sam xel ne yéene naa tisbaar daal ni allahu akbar fi saa saa wala boo ne allahu wala ngaa daan ci akbar nga dawale fi yéene ji foofu wala yel sama xoo du ko war at taxaru bu gaaral fii niyati yi ci yéeneem li xadadi rakaxaati ñel limu rakkee maanaam bu soxlawo nga yéeni waale julli googu ñaata rakk la niki tisbaar du jar nga yéeni waale ne ñeenti rakk la wala takkusaan timis tam du jar nga yéeni waale ne julli gi may julli ñaata rakk la ak taalisatu ñetteel bi xiraatul fatiha te muy jàng fatiha xalal imaan war ilimaan wal faddi ak kenn faddi lay wax naa bi daalin ci ak daal moo jamat nga dudum tomb ay limu ci namm almun faridi kenn nee na jàng fatiha farata la ci boo dee julli wala ngay jiite waaye bu fekkee daam ku lay jiite yow ngay maamoom moom bu ilimaan jàngee rek jàngaale na la daañu wax sax ni sit na ilimaan ni biral nopp noppi yow nga nekk ànd ak moom di wax ci suuf fekk day biral donte déggoo ko sax ba bu dee yàlla nag mu ilimaan ñu soppi yow itam ngay wax ci suuf rek di yàllu ndax sam xel bañu nekk ci leneen arrabihatu ñeenteel bi alxiyaamu mooy taxawaay wa lil ihraam yi ñeel armal ga wala xiraatil faatihat ak ak ñeel jàng faatiha waaw nee ba nga ne allahu akbar wax gi soo làmmiñ day farata xamal ne taxawaay ba ngay taxaw wax allahu akbar itam farata la boo toogoon wax ko te fekk nga mën a taxaw du baax bu ñuy jàng faatiha farata la itam taxawaay ba ngay taxaw di ko jàng farata la soo toogoon jàng faatiha te fekk nga mën a taxaw du baax alxaamisatu juróomeel bi arukooxu mooy rukoo hmm. nee na rukoo farata la wa akmaluhu gën jaamatam an yan xan yow mooy mu sëgg bi xay su yastawi ci foo xam ne ne yemoo zahruhu gannaawam nga wa hunuquhu ak doqam nga wayan siba te muy samp rëkku ba tey ñaari bëti woomam te muy teg kafa yi ci seen ñoom ñaar ko ñaari bëti woom yi nee na rukkoo moom boo xasee sëgg rek ba nga xamee ne say loxo jege na say bëti woom rek rukkoo am waaye nag nañ ko soppi mooy dangay sëgg sëgg boo xam day maase sa gannaaw ak sa doq doo ci dooxal leen doo ci sëgal leen bu mopp su ko defee say bëtiwam nga dij ko mu samp bu baax say loxo itam nga jàpp ko ci say bëtiwam bu dëgër wayu jaa fii dana soreeli arrajulu góor muy faq yi yaari coñcoom ya xan jàmbay yi walis yaari wetam walaa yu nag su tey du jat rasaxoo boppam bal li fi nekk yekkoon dana nekk zahruhoo gannaawam nga mustawiyan di aji yemoo mooy di ay jub xocc nee na boo góor dañoo sopp boo sëggee duru ko nga yàng say poqtaan përëg yi bañ cee tafu te xaw ko yàng yàng bu yem ko defee itam sa bopp nga bañ koo téenal bañ koo sëgal nga ne bopp bee gannaaw bi yëpp day maase rek lu ci nekk yem asa di sat juróom-benneel bi as sujoodu mooy sujoot wa sifatuhu meloom ay yu makki ne mooy mu dëgëral jabhatahu jëxam ba wa anfahu ak bakkanam minal ardi ci suuf nee na sujoot farata ci julli mooy juróom-benneel bi sujjóot nag mooy nga teg sab jë ak sa bakkan mu ne dégg ci suuf nga boole ci waru ko ba tey ak ñaari bët yoom ya wa asaabi xal xadawayni ak cati baaraami ndëgg ya maanaam sujjóot ak jëbi mooy farata sujjóot ak bakkan bi sunna la nga boole ca nag léegi say bët nga sukk ko say baaraam yi ndëgg itam sampu loolu lépp mu ngi bokk ci sunna si li koy gën a matal rek waaye jëmmi sujjóot ak jëbi rek moom mooy li farataam assaabixatu juróom-ñaareel ba wattaaminatu ak juróom-ñetteel ba rafu moo di siggi bi na rukkoo bàyyi ko ci rukkoo war sujjóot ak sujjóot siggee ci rukkoo ak siggee ci sujjóot leen lu ci nekk farata ñaari sigg yooyu boo rukkoo yi da ngay siggi ba mel ni ba nga sëggagutoon boo sujjóotee benn li fekk siggi woo doo am sujjóotu ñaareel ndax yàggaayu benn bi mënta mot li mënta wecc ba ca des faaw nga siggi mel na nga meloon dooru jàll sujjóotaat bi ca des fa in bàyyi na ko rek wajabat kon war al ihaalatu baamu nga nee na siggi boobu soo ko bàyyee day aajoo nga baamuwaat rukkoo ba ngir nga am siggi boobu ak bu dee sujjóot ba nga ba ngir nga am siggi boobu ndax siggi boobu mënta ñàkk atta sixatu juróom-ñeenteel bi al su mooy jataay ba li salaami ñel salmul ba xadrama kem la nga xam ne yaa tadi dana yemoo fii ci moom wayu sallimu salmal farata juróom-ñeenteel mooy dana wax léegi ne la asalaamaaleykum wax gi ci la farata la waaye diw da nga koy waxee itam nga toog ko farata la ba yàkkamte woon jóg dem wax ko ci taxawaay bi du baax kon biir ba ngay waxee asalaamaaleykum lu mu gàtt gàtt farata la alxaasiratu fukkeel bi taslimatu taxalili mooy salmalu yooyu ko ba waxiya moom asalaamaaleykum moo di asalaamaaleykum wala yu ji si du doy xayruha lu dul moom maanaam asalaamaaleykum jooju nee na moom rek baax boo woon aleykum salaam sax du ko tax a waax bu indiwutoon taala ji sax ne salaamun aleykum ba tey du tax mu doy walay sax alal imaam yi di war ilimaan wala vas ak kenn xayru na boo dee julli yow ngay jiite benn asalaamaaleykum boobu rek ngay wax doo ci dolli beneen wa amal ma amamu daal maamoom fa yusallimu xaa dana ko salmal an yaminihi walis am ndeyjooram wetu ndeyjooram maanaam suma yusallimu topp dana sëlmal xubaalat wacc yi ci njëxal kanamam yàq si dana jublu bi haa ci moom ar radda delloo ga xalal ci ilimaan ba suma yusallimu topp dana sëlmal xalaa yasaari ci càmmoñam inkaana nekk na xale yi ci càmmoñ ba ahadun kenn moom it yàq si dana jublu bi haa ci moom ar radda delloo ga xale yi ci moom nee na soo doonee maamoom te am ku la féeti càmmoñ ci biir ni ngeen tooge woon di julli kon na ngay wax asalaamaaleykum ñetti yoon ndax damay njëkk wax benn boo xam ne moom dangay xaw a ndeyjooru tuuti bu ko ci sa gannaaw seen sa pegg leex loolu boobu moom farata la mooy bi ngay njëkk wax nga waxaat benn delloo ko sa ilimaan muy ñaar ki la féete càmmoñ bu fekkee amul jullit matub ràkka itam nga wëlbati ko wax ko ndànk asalaamaaleykum hmm. kon ñett lay doon wal afdalu li gën nag fii taslimati raddi fii taslimati raddi ci salmalub delloo ba an takkoona moo di mu nekk bi lafzi taslimati taxalili ci kem baatu sëlmal wéeku ba maanaam sëlmal bi ngay delloo sa ilimaan wala ki féete càmmoñ nga wax ko asalaamaaleykum noonu mu taarati mat moo gën ndey bi ngay delloo moom boo ko yemoon ci salaamun aleykum bañ koo taara wala wax aleykum salaam jiital wax aleykum jiitu ko tee baax waaye nag mel ne farata bi daal ñoo gën moo gën wala yu saratu deful sart ay yan bi mu yéene bi salaamihi ci salmalam alxorooji génn mine salaati ci julli ga ala ahadil qawlayni ci benn ci yaari wax ya al mashhurayn ya duñu siiwal waaw ah, nee na duñu sart ne booy wax asalaamaaleykum faaw da nga ci yéenee noppee ci julli gi maanaam faaw nga ne asalaamaaleykum te yéene waalee caa nopp ci julli ga loolu du ci sart boo ko waxee rek mu baax loolu mooy benn wax bi moo tax mu ne benn la ci yaari wax yu siiw wa muqaabiluhu wax bay aji jàkkaarloo moom nag muy wax ba tolloo moom mooy laa budd mënta ñàkk min zalika ci loolu wax ba ca si moom dane faaw rek da nga ci yéene ci boo wax asalaamaaleykum noppi ci julli yi boo ci yéenewul loolu du doy waaye mën ngaa doy loolu bi mu njëkk wax rek mooy ñàkk ko caa yéene moom di ci wàññi dara waxale ci kaw wax jooju nag yàq su day jublu bisa al imaamu ilimaan ba bi salaamihi ci salaam al xoroo ja génn mina salaati ci julli ga wasalaam ak nuyu alal malaayikati ci malaayika ya wal muqtadiin ak way raw ñu bi ci moom nee boo toppee wax ji wax ni booy wax asalaamaaleykum faaw nga yéene caa noppi waale ci julli gi kon nee na booy wax asalaamaaleykum boobu da nga ci yéene nopp ci julli ba noppi nag yéene waale ci nuyu malaayika ya fa teew ak ñi nga xam ni ñoo doon ci yow ndegam yaa jiite wa yaq si yu tëdd na jublu alfaz du kenn asalaamu nuyu alal malaayikati ci malaayika yi kon bu fekkee ne yow dong la woon jiite woo woon kon da nga yéene noppi ci julli gi ba noppi yéene waale nuyu malaaka ya fa teew alxaadiyata xasharata fukkeel beeg benn al ihtidaalu mooy ca tàggale ga benn arkaan diggante ponk ya nee na farata la ihtidaal mooy boo siggee ci rukkoo baa sujjóot ngay dellu ba taxaw jonn wala dellu ba toog jonn na nga meloon njëkk ngay rukkoo baa njëkk ngay sujjóot cëri jubaat xocc mel nañ meloon loolu farata la ak taaniyata fukkeel ba ñaareel ak tuma aninatu mooy dalga fii arkaani salaati ci ponk julli ga kulliha léppam qiyaamiha moo xam ab taxawaayam la wa rukooxiha ak wa rukoom wa sujoodiha ak sujootam wa rafi ak siggi ga minha tukkee ci yooyu wa bayna sajdatin ak diggante ñaari sujoot ña nee na ak dal ci ponk julli boo mën di toll mooy nga ne tekk ba cër dal loolu farata la waaw moo xam dangaa rukkoo ba siggi mbaa dangaa sujjóot ba siggi wala wala dangaa toll ci rukkoo ba mbaa dangaa toll ci sujjóot ba moom daal foo toll ni tekk rek loo yàkkamti yàkkamti pëccër yi dal loolu farata la soo ko bàyyee rek bàyyi farata boo siggee ci benn sujjóot bala ngaa defar bu ci des faaw nga def tekk jooju bala ngaa dem ci bu ca des diggante ñaar sujjóot nii wal farqu teqale baynaha diggante tumaaniina mooy diggante dal gi wa baynal ihtidaali ak diggante yemoo ba mooy ànnal ihtidaala naka lihtidaal fil xiyaam ca taxawaay ba masalan ci misaal intisaabul xaamati mooy sampuk taxawaay ba wa tumaaniinatu te tumaaniinatu moom istiqraarul axdaa yi mooy saxuk cër ya ne dal gi ak juguk cër yi mooy lu ci nekk lee mën naa am te lee am ndax xam nga cër yi mën naa jug te du dal ca li mënoon a tekk itam taxu leen a jóg kon moo tax yow mën nañu xàmmee athalisata xashrata fukkeel beeg ñetteel tartibul adaa yi mooy toftale joox ga toftale farata yi waxuwa moom añ yakkoon mooy bu nekkee al ihram armal xabla qiraati ci njëkk jàng fatiha wal qiraatu jàng fatiha nekk xabla rukoo ci njëkk rukoo nekk xabla sujood ci njëkk sujood wa sujood sujood nekk xabla salaam ci njëkk salmal maanaam nga toftale farata yi farata la loolu mooy nga tàmbalee julli allahu akbar muy armal nga teg jàng faatiha mu jiitu rukoo ak sujjóot nga tegale ràkka yu noonu ba kenn kenn nga wax asalaamaaleykum waaye boo doon julli njëkk a jàng faatiha te waxoo allahu akbar boobu du baax boo julli njëkk a sujjóot du baax nga xam ne kon tegalee farata yi ni benn rakk tegaloo nga jàll nag ba asalaamaaleykum mujj ci farata arraabixata xasharata fukkeel beeg ñeenteel almuwaalaatu moo di ak sësale fay jibu dana war iqaahu ajjisaa i salaati tàbbal xaaju julli gi wa arkaaniha ak ay ponkam yooyu lii mbir moom dana topp baaduha lenn seen baadan lenn min xëyri tafriqin ci lul tàggale waaw ah, nee na beneen fukkeel la ñeenteel mooy sësale sësale mooy boo tàmbalee julli boo defee lee teg ci la ci war a topp doo mën ne allahu akbar armal ba mu yàgg nga door tàmbalee jàng faatiha wala nga jàng faatiha